لمن خلا وسالكنا للخل lii baalu maa macha allah jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñu ngi fii ci guddik xaside gi nga xamante ni at mu yàlla sàkk ñu ngi koy ànd ak am Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou fii ci Porokhane Serigne bi di ko lay li nga xamante ni mooy guddi gi waaye saa su nekk rek bu guddi gi jotee mbokk yi mu am beneen taxawaay boo xamante ni. mën nañ ne murid yi dinañ ko amaat ci jëmm ji nga xamante ni mooy Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou waaye ñu toog ak koo xamante ni kenn dootu ko nuyoo lekk njabootuk Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou waaye it kenn dootu ko nuyoole it ci axlu xasiida muy Serigne Saliou Mbacké xasaayit mu am lu bari loo xamante ni mën na koo jàngat ci bis bi am lu bëri loo xamante ni fekk na ko ci bis bi ci door lu mel nii bu fekkente ni suñu borom def na ñu teew ci teewaat ci bu ñàkk ñu dégg suñu micro mu waxaat ñu rek ci taxawaay bii nga xamante ni sëriñ bi mi ngi koy amal di ko ànd ak ay way juróom wu tedd wi nga xamante ni Cheikh Mahamadul Muntaxa ak soxna Bali mi nga xamante ne taxawaayam ci liggéey bi kenn dootu ko naatable du ñàkk ngeen am ay jàngat yu bari yoo xamante am ngeen ko ci waaye rawatina axlu xasida gi nga xamante ne ñëw nañ ànd ak sëriñ bi ci liggéey bu tedd bi nga xamante ne mi ngi ko fi amal. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant suñu borom di ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh Al Khadim wax ji de moom mën naa bañ a gudd. jàngat biñ ci am rek mooy nekk ci sëñ Tuubaa rek a wóor eh, sëñ Muntaxa mas naa wax fii ne mas nay waxtaan ak sëñ Basiiru ci mbirum sëñ bi waaye fa mu tënk wax de mooy sëñ moom am na ful la foo ko taw la mu la fa sëñ bi sëñam satu nag kenn xamut ci moom lu dul sëñ Tuubaa yàlla dogal na nekk nañoo moom diiru fukki at boo xam ne daanaka fanaan ñoo koy def waaye kenn munta xam ci moom lenn lu dul sëriñ bi sëriñ bi la bëgg moom lay xool moom lay dund moom lay yëg moom lay dund loolu moom ku ko xam ku ne xam na ko ci moom bàyyi googu mu bàyyi xel sëriñ Tuubaa nag di ko dund ci léppam moo waral mu murit yëpp jox ko seen xol ba fu mu leen mën a woyit ñu fekk ko fa loolu rek moo waral mu ne nii waaw te te nag li ci kanam saxee dàq incha allah bu saxee xasida yi na moom mooy dundub murid yi mooy xontu murid yi hmm. moo tax képp ku bëgg a yëg Sëñ bëgg koo dund faaw nga di ci farlu hmm, waaw moo tax ñaare da ngay gis ne murid buy jàng xasida ak bi ko dul jàng faaw dañuy am ak wuutu wuute ndax yëg-yëg bi murid bi jàng xasida di yëg ci Sëñ Tuubaa di ko dund keneen ku ko du def du ko mën a am mukk macha allah Serigne Saliou yéen ñi nga xamante ni da ngeen a yàgg a nekk ci peggug Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou te dox bi mësta soppeeku tey jii ñu mel ni ñun buy ñëwee wàll si ci liggéey bi ak ñeneen ñu dul ñun fan lañu war a teg seen bët. ci Sëñ Tuubaa rek Sëñ Tuubaa dong daal lañu war a xool ndax moom wanewut boppam waxut jëmale ci boppam ku ñëw ku ne Sëñ Tuubaa la lay joxañ ànd ak yow dox jëm may leen loolu sëñ Mbay Jaxate waxoon moom xaalam noonu lay dundee donte du ko wax awal ca ngir ma woote ca képp ku ñëw fekk la ca ku dikkulit dégg la ca ku wuy si daw nga jël ndamam naka jekk mooy kéem mbiram mépp jëf la àndut ak ay wax dama moo du Mamoun Niang fan yi rek la fi bàyyi ko dama ko masa laaj ne ko dama bëgg nga dénk ma mu ne ma dama lay dénk la ma sëñ Abdou Lahad dénkoon dañ ma àdduna ku ci bëgg a mucc dangay eh, yii ngay yii ngay saxoo mooy ku wax noppil ku jàpp bàyyil loolu nag ku koy def doo xëccoo doo xuloo te léegi musiba yëpp mu ngi tàmbalee ci yooyu xëccoo daraja wala xëccoo njariñ wala xuloo ci la yëpp dem moo tax sax sëñ Tuubaa woon juróom yi tere naa leen ko muy xeebaate xastaate xeex xuloo xaru ku aji ci man tere naa la ko sëñ bi nag ñii rek nii nii nga gise ñun ñëpp ni lañ ko xam nekk ci sëñ Tuubaa way ci bañ cee boole ay kaaf kaf ak i ree ak i caaxaan du wax day jëf rek loolu daal lañ ko mën a wax fi yàlla yàggal te ko. loolu rek la loolu lañ mën a wax daal. Eh, kaddu gu mujj gi Serigne Saliou. ah kaddu gu mujj gi sant Serigne Touba rek sant Serigne Touba rek di sant Serigne Touba di ñaanit mu nargan ñu ci boppam dimbali ñu ci boppam te musal ñu ci li xew léegi loolu Serigne Baye Diakhar doon wax murit gu woyof gi tooy yàlla nañu ci musal ndax eh, sikk sab ak naan daa waroon a wala Serigne bi wóortoona walla lii walla laa. bépp anam rek sikkay waral sikk di nga day waral ku ne dem ànd ak sa bopp te suuxoo suuxaloo jafe na moo tax li ak murit laaj dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li suñ bay jaax waxoon day mel ni ku dee murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man ak murit laa te doo am murit murit dëgg day dee te deewul asal li dee metti metti jotul ak murit amaana nga gis waaju tëb daal di dee te doo gis ku tëb daal di def am murit loolu li li li ci jublu mooy bàyyi ko gi murit war a def ba nga xam ne du tànn du du doon ci boppam dara luñ ko tànnal doo ko doy neex ci moom jub fi moom rafet ci moom loolu mooy melaw murit te léegi nag mel na ne tëna ku nee ngi wax te kenn wut a wax nag ñëpp dañoo war a déglu kenn rek la borom Tuubaa di waxal mooy ki ko fi nekkal kooku dong la ñu war a déglu lu wax ñu def lu mu waxut ñu déglu bu bu bu teree ñu bàyyi loolu dong mooy mooy mooy doxin bi leneen lu ñu def dañuy tàddal suñu bopp rek waaye duñ dem fenn yàlla na yàlla dimbali. jërëjëf euh, Serigne Saliou Mbacke xasaay di ñaan suñu borom yàggal la yàggal taxawaay bi mbokk yi nii rek lañ koy wéyee di ànd ak yéen ci guddi gi nga xamante ni ñu ngi koy amal la fii ci Porokhane ci taxawaayu Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Saliou. jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi fii ci guddi ajuma gi nga xamante ni kenn ku nekk xam na taxawaay bi nga xamante ni moom la ci sëriñ am Amsatou Mbacke moom sëriñ bu bi am waaye di ko ànd ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ak mbokkam mu baax mii di soxna Bali Mountakha ni ki tey jii ku ñëw fii ci bërëb bi rek saxol dina sedd bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ni sëriñ bi am na ko ànd koog bokkam yu tedd yi nga xamante ni ku fi ñëw rek di nga rafetlu liggéeyam bii nga xamante ni mi ngi koy amal foofu ci Touba alxames ju yàlla sàkk ni ngi tey jii nag dëppoog bis bi nga xamante ni mi ngi koy amal at mu yàlla sàkk fii ci Poroxaan bu màggal gi desee bis bu dellu si waaye ñu toog ak koo xamante ni it kenn dootu ko nuyoole ak axlu xasida moom it mu am taxawaay bu rëy boo xamante ni da koy am ci liggéey bu mag bii nga xamante ni moom la sëriñ Amsatu di amal moo xam ci Touba ak liggéeyu Touba waaye rawatina bis bii nga xamante ni mooy bisub soxna jaaratullaahi sëñ Ibrahima mu mel ni accepté nañu ci liggéey bii nga xamante ni miine nañu di ko ànd ak sëriñ bi saa su nekk mu mel ni murid yi defati nañ liñ daan def ba def loo xamante ni yokkaat ak ay pas-pas la saa su ne ci liggéey bi nga xamante ni sëriñ Amsatu mi ngi koy amal alxames yi jot ni ki tey jii mu dëppook nag bis bi nga xamante ni mi ngi koy indi fii ci Poroxaan mel ni liggéey bi yàgg ngeen ko ànd foofu ci Touba nga xamante ak soppeeku amu ci te ak jéego moo am rek ñu ñëw fii ci bërëb soxna jaara defe ko ci murid yi bàyyi ko fenn fu nekk ci àdduna bi du ñàkk am ay jàngat yu yaatu yoo xamante ni dingeen ko ci am waaye rawatina axlu xasida gi nga xamante ni dañoo bàyyi fenn fu nekk ci àdduna bi ñëw teew ci liggéey bu tedd bi nga xamante ni sëriñ Amsatu mi ngi koy amal waaye di ko ànd ak yéen ñii nga xamante ni ay jëwriñ ngeen ci li nga xamante ni mooy kuréel gii di axlul xasida ban jàngat ngeen amaat ci liggéey bu tedd bi sëñ Ibrahima waaw kay jàngat bi ñu jàmm rek ñu ngi leen di siyaare day ñaan sëñ Tuubaa dafa la ñu tawfeex ci liggéeyam bi gën ñu ko dolli ndax am nañ ci tawfeex ba noppi jàngat gi moom li ci si mën doxaa rek ndax nee na képp ku gis euh, liggéey bi xam ni dañ cee daje ak sëriñ Serigne Touba rek waaw loolu daal lañ ci jàngat yaa ngi ne daal Serigne Touba moo ñu tawféexal waaw defal ñu ci tawféex tawféex jooju rek daal moom mooy jàngat bi waaw ñëpp nag ànd ci ak xol bu sedd guy ak xel mu dal it lool nag ndax ku sañoon di dàkk sëriñ bi ci ak bëggam te lii moom ñëpp mën nañoo waat ni bëggu sëriñ bi la. kon nag yàlla nañ sëñ Tuubaa saxal barke Xaadim Rasuul barke soxna Jaaratullaay soxna si day kenn ci sëriñ bi muñ fi dajee di ko defal guddi gu ci xasida yi tëdd yi kenn ku ne xam nañu lépp loolu luñ nangu la kon nag loolu ko amul tawfeex rek mën na cee ànd kon nag dañoo am tawfeex rek macha allah sëñ Ibrahima xanaa ñëw rek ci axlu xasida ñi nga xamante ni yàgg na ñuy ànd ak yéen ci liggéey yu mel nii nga xamante ni bu guddi gi jotee moo xam ci Touba la moo xam mobilisation bi nga xamante ni dañ koy def di bàyyi ko fenn fu nekk ñëw di ànd ak teewlu ànd ko liggéey boo xamante ni ku fi ñëw sa xol dina sedd ci taxawaay boobu ñooñu tey ban soññee ak yan kàddu koy nga am tey pour laayante biir nañ ko ah, loo daal bu ko ñëpp day wut daal defal la ko te ñëpp bëgg ko boo ko amee moom da nga ciy gën a euh, def sa passif rek li si mën nga wax léegi rek mooy soññe bi bañ a xool dara bañ bëgg dara waaw ndax sëriñ bi xoolu woon kenn ku du yàlla yonent bi ñu ñit kon bu ñu xool leen lu dul moom ak liggéeyam bii rek bu ñu saxee ci loolu daal lañ bëgg lépp dañ ko am bañ a xool leen rek waaw jël benn bët di ko xoolee sëriñ bi rek di ko liggéeyale sëriñ bi rek waaw loolu daal man laa xam ni buñ ko defee lañ bëgg lépp dañ ko am bañ a bëgg dara bañ a wut dara lu dul sëriñ bi di ko wute ci xaside yi boo bàyyi dañ ko am ci am am ñu sell di barkeb soxna Jaaratullaah macha allah jërëjëf sëriñ Ibrahima ndeysaan di ko ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax a baax taxawaayam yàgg lool ci liggéey bi macha allah mbokk yi nii rek lañ koy wéyee di ànd ak yéen lépp loo xamante ni am na fii ci guddi gi dañ leen ko dëgtal incha allahu rabbi fii ci Poroxaan fii ci bërëb bii nga xamante ni ku fi ñëw sa xol sedd na ci taxawaayu sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaib midaadi wa aqlaami wa lawhi wa galgali وجسمي لمن لي وجالي سوى الوهبان منادي وأقلامي ولوحي وكالكليب وجسمي لمن لي وجالي سوى الوهبان macha allah jërëjëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñi ngi fii ci Porokhane ci liggéey bu tedd bi nga xamante ni sëriñ Amsatou Mbacke moom sëriñ Chouaïbou mi ngi ko fi amal at mu yàlla sàkk muy guddi gii nga xamante ni bu accès rek mën nañ ne mboolem murit yi dinañ yëg taxawaayu sëriñ Amsatu ci soxna si nga xamante ni moom lañ janool ci barab bu tedd bii di soxna Mariama bu sa jaaratullaahi niki noonu nag guddi àjjuma gi sëriñ Amsatu di ko amal saa su nekk waaye comme ni ngeen ñu déggee noonu sànq ci suñuy kàddu ci suñuy mbokki góor yàlla ak suñuy sëriñ noonee it lañ koy dékkee ñenn ci soxna yi rawatina ñi nga xamante ne ñoom it dañoo ànd ak sëriñ Amsatu ci liggéey bu rëy bii nga xamante ni mi ngi koy def ci xasida yi ñu taxaw koo xamante ni kenn dootu ko nuyooleeg ñooñ xasida muy soxna Mayaan Seydi moom it di jàmbaar lool ci li nga xamante ni mooy xasaayit yi di dund xasaayit xasaayit doon yitteem guddi gii saa su nekk muy ñëw di bàyyee ko ba Ndakaaru di ko ànd ak sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ bu ak yeneen yu dul guddi yi du ñàkk buñ teewee ci jataay yu mel nii mu am ay góor yàlla am ay soxna ñu dégg ko suñu micro mu wax leen rek ci jàngat bu yaatu euh, ci liggéey bii nga xamante ni sëriñ Amsatu mi ngi koy amal euh, fii ci Poroxaan mel ni ñu dellu si ci liggéeyam bu tedd bi nga xamante ni mi ngi koy amal foofu ci Touba alxames ju Yàlla sàkk tey jii nag mu ñëw xoowaat di ko amalaat fii ci Poroxaan di ko defal maam bu tedd bi nga xamante ni yeyoo na lu raw lii soxna yaan ban jàngat ngeen am ci liggéey bi sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïb. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba. waaw sëñ Modou da xanaa di santaat bu baax rek di sant Serigne bu baax ci teewaay gi ñu teew fi di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wër ci bàkkeb soxna jaaratullahi Mariama Bousso noonu lañ koy ñaanale suñu suñu bunt suñu jëwriñ di siñaam soto Mbàkke moom suñu soñ bu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér moog njaboot gi lépp rek di ko santaat bu baax di sant di sant yàlla di sant yonent bu baax di sant seexul dem ci teewaay gi ñu may ñun ñëpp ñu teew fii te xam ne si ngëneel ak feex rek la xanaa di ñaan yàgg koo fekkee te yàgg koo teewe te yàgg di ñaanal sëñ Amsatu mu yàgg fi te ànd ak kattan ak wér gum ko yàgg defee comme ni mu koy defee saa su nekk nag yéen it ngeen yàgg fi lool te yàgg ci liggéey bi ñu ngi ñaanal murit yëpp di leen ñaanal saatu daare ni ci barkeb soxna si barkeb nuru daare ni jërë ngeen jëf macha allah soxna yaan du ñàkk jàngat bi jëm ci mbokki soxna yi mu mel ni euh, euh, guddi gi day mel ni ni ko so ni ko góor yàlla yi di songee noonee it la ko soxna yi di di di waajalee mel ni tey ku gis soxna yi seen taxawaay ñëpp ñëw ñoom it jublu xibla ñi ci mën a jàng alxuraan yor jukki alxuraan di jàng ñi ciy jàng xasaay tamit yor jukki xasaay di jàng ñi ci mënta jàng alxuraan ak xasida yor seeni kurus ñi ci mënul loolu lépp it ñi ngi toog teewlu di déglu njàng mi loolu mu doon beneen yokkute goo xamante ni dafa amaat ci liggéey bi nga xamante ni am Amsatou mi ngi koy amal. waaw xanaa loolu yëpp sëñ Modou day duggaat ci sant gi rek waaw ndax euh, euh, euh, sëñ Tuubaa moom amul amul amul amul góor amul jigéen loolu ñëpp xam nañ ko. amul amul ndaw amul tuut tànk xanaa kuy kuy kuy topp rek di toppi di topp ndigal yi tey bàyyi tere ñuy waxaat ñu mbokki soxna yi di leen santaat bu baax a baax di soññ suñu bopp di gën a soññ ñëpp ñu gën a jàpp ci liggéey bi gën cee taxaw te tey ñaanal ñi nga xamante ne nekkaguñ ci it sëñ Tuubaa ñoddi leen ci ba ñu ñëw di ànd ak ñun liggéey bi ci barke borom Tuubaa xaside yi waaw loolu ñu ngi koy ñaan bu baax a baax baax yàlla nay gën a yaatu saa su nekk rek waaw tey tey tey yokk suñu Pastef te xam ne fi moom àdduna dara desatu fi lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa moo moo des ci jaamu yàlla waaw noo ngi sant bu baax tey sant ci doole maam Cheikh Ibrahima Fall mu yokk ñu defal ñu tawféexi zaahir ak baatin ba ñu gën koo gën a jekko gën a ànd ak moom liggéey bi ci barkeb xasida yi jërë ngeen jëf du laay ngay am jëmale ko ci mbokki soxna yi waaw xanaa ñu gën a soñu rek te gën a gën a gën a jublu ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi te xam ne eh, eh, fii moom maanaam dara dara defee desatul ñu gën a góorgóorlu gën a gën gën a fonkaat lépp rek gën a fonkaat euh, euh, borom kër yi gën a fonkaat lépp rek gën a fonkaat jaamu yàlla gi te xam ne àddina moom lii rek moo fi des leneen desatu fi mm-hmm. waaw kon kon dañuy wax ci ci ci kàllaama nasaraan mm-hmm. ne ne ne ne la femme fait la société mm-hmm. kon jigéen bu société jagee soxna yi la bu société ñàkkee jag tamit soxna yi la kon ñu ngi soññ suñu bopp du soñaa suñu mbokk soxna yëpp ñu gën a góorgóorlu